وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصف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 rashidan wa murshidan wa fikrati نور wa qalbi arshida talibe talibey ma ngi len di nuyu bu baax di len ziyaara mbokki jullit yep ak doomu adama yep di aman mbégte ñew ak yeen ci seen jotaay bi tuddu yoon wi ñuy nekkon rek di leebirante yeen ci diine ji nga xane mo wër diine yi bari lool ba yi ci ëpp seytaan da ca dugg ba jaxase ko ba ba ba bari ca waaye nag diine ji yàlla soxla te mu wér mooy diine lislaam ak eh, ñi ci ne ak li ko jege bu ko defee nag diine lislaam jooju itam wax nañ ne moom it seytaane bàyyiwu ko mu ngi ci doon dugg si di yàq xam nga ne ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallama seyduna abu bakar ñaari at rek la fi def jóge fi seyduna omar moo ko wutu xaw na fi am diir waaye ci jàkka ji lañ ko faate Seyduna Ousmane moo ko wuutu moom it am na fi ab diir waaye moom it këram lañ ko gaw lu mat ñeent fukki fan dugaluñ fa ndox dugaluñ fa lekk ba fekk ko fa mu toog ñu caw ko jees yi ba mu sedd guy gis ngeen ginnaaw loolu tam Seydina Aliyu moo ko mujj waaye ci jàkk ji lañ ko faat kon dama bëgg wax foofu rek ni te boobu la werantey tàmbale ak coow li diine jullit ñu nekk ñaari xaaj wala ñett am chia ay juddu mooy waa kër ñi nga xam dañoo jàpp ne waa kër ali yu rek ci gàttal ak ñi nga xam ne ñoo ñoo mooy mooy xawaari ji ak banu umayya du ma leen tudde maanaam du ahlu sunna mooy noonu ñii de ñi nga xam ne ñoo doon dund tasawuf nga xam ne mosu ñoo bokk ci benn benn xew-xew loolu lu lu am lu leer la am nañ ci ay tegtal yu leer yoo xam ne mas nañ ci ñëwaat insha allahu taala foofa nag ci la jullit ñi tàmbalee dugg ci ay xeex yu bare bare bare bare gis ngeen ginnaaw Seydina Aliyu imaam Xasan al mujtaba bi mu bàyyee xilaafa gi Seydina Muawiya Muawiya bi ginnaaw bi da koo jox doomam bi ñuy wax Yasid ibnu Muawiya Yasid ibnu Muawiya gis nga ci jamonoom lañ dajale mboolem sëti yonte bépp ak njabootu yonte bépp ren di leen daanaka faat leen ci benn bëccëg ba mu des ñetti nit ñoo ca mucc bu du woon ak ñooñu yonte bi dafa bàyyi sët kon li ma bëgg wax mooy lislaam it ginnaaw yonte bi seetaan yi mi ngi doon jëf-jëfam di yàq waaye itam yàlla mësta bàyyi diine ji waxtu ne mi ngi yabal ñoo xam ne ñoo ko yeesal di ko leeralaat li jëkk a yàqu mooy mbirum politique ak mbiru état ak doxal àdduna loolu ka ko leeralaat yeesalaat ko mooy Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne àggoon na ñu di ko tuddee xaamisul xulafaa irrachidin ginnaaw ba wàllu pas-pas am na jafe-jafe ndax yu firaq yu bari dafa judd qadariya mu'tazila murjia ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dinañ ci ñëw incha allah bu ñu àggee ci tawxid ñooñu bu ñu juddoo indi ay wax yoo xam ne indi na lënt yàlla waajal jëmm ju ñuy wax abul xasanil yi mu yeesalaat la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon ci pas-pas ba mooy aqidatu ahli sunna wal jamaa bii nga xam ne moom la sëriñ bi way ci téeréem yi te moom la ñuy jàngale itam ginnaaw bi wàllu fiq ak atte bari na ay njuumtee ki yëf ak wuute yàlla tàggat ñeenti jàmbaar muy abu xanifata nu'man imaamu malik ibnu ibnu anas imaam abu abu ah, imaamu shafii ak imaam ah, ahmad ibnu hambal ak ñeneen ak ñeneen ñu ñëw yeesalaat lislaam ci wàllu googu mooy leeralaat li yàqu woon ak maanaam leeralaat diine indi atta yi delloo ko ci cosaan ya ci alxuraan ak sunna si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ginnaaw bi gis nañ ne tasawuf am nay jafe-jafe ndax ay baatiniya firqa la boo xam ne bokkut ak tasawuf dara waaye dugg nañ ci seen biir ak yu bare bari yu ci xew waaye imaam ah, abu imaamul Ghazali masalan ñëw na leeralaat ci tasawuf loo xam ni maanaam kenn amatu ca lu ñu kii dundalaat ko ba bind téeram bi mu tudde ixyaa u ulumi diin nga xam dafa dundalaat xam-xami diine yëpp noonu la lislaam mas di doxee ba nim accès ci nag sun jamono ji mujj ni yàlla yabal jëmm ju ñuy wax cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu waajal ko mu ñëw yeesalaat diine jàngale ko ba mu leer nàññi bind ko itam maanaam lépp la ca wér ak lañ ca war a topp mu bindal na ko moom it li dal li seytaane def ci fépp rek def na ko mooy nun xéewal yee bari ci suñu biir ba tëluñoo jàngat loolu sëñ bi indi woon jàngalewaat ko itam ci àdduna bi ba tax na ñu bari ci àdduna bi fi ne umpale nañ ko xam xamuñu ko kon Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ñëwee lim la wax mooy yàlla jenn diine la bëgg mooy lislaam yaa ngi dégg moom Cheikh Ahmadou bi dafa waxoon ne ci diine jooju rek man ci laa ne diini ilal jannati l islaamu wa huwa ala diinan siwaahu wada nassun min allahi sama diine jenn la mooy lislaam te moo kawe diine yi ci des yépp waaw wax na itam ni raditu bil islaami diina laa yazuul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul maanaam jooju laa gërëm moom laa tànn moo ma neex muy muy muy diine yaa ngi dégg ci la njubug suñu borom tabaaraka ko taala itam nekk itam loolu it leeral nañ ci lu bare bare bare kon dañuy dugg ci ku ne xam na ne itam mm, Cheikh Ahmadou Bamba dañ koy tuddal tariqa wax ne tariqa la yor boole ko yeneen borom tariqa yi fi ne kon lan mooy tariqa itam war nañ ko laaj waaye balaa boobu dañuy dugg ci nekk ci yi itam lan la jariñ ndax mënuloo nekk rek ay jullit tàyyee dugg ci af ci mbiri tarixa ndax boo demee ci tarixa dañ lay déggal ngay jullee ko woor rek ak yu demee noonu léegi kon nan nekk jullit rek tàyyee nekk ci tarixa am na ñuy laaj laaj boobu laaj bu am solo la itam bu mat a tontu foofu la ñuy duggaat itam insha allahu taala mooy sëriñ bi jàngal lan diine waaye dañu ko jàngal ci anamuk tasawuf gu jaar ci tasawuf jaar ci tarixa itam kon faw ñu xam lan mooy tarixa ak euh, dugg ci tarixa yan njariñ ñoo ci ne nag xam ngeen ne ci njëlbéenu lislaam dawuñu teqale fiq ak tasawuf maanaam atay diine yi ak dox jëm ci yàlla yooyu amutoon teqali ko gis nañ abu xanifata nu'man bi muy leeral lan mooy fiq ñaar yëpp la boole rek muy leeral mooy li maarifatu nafsi ma laha wa ma alayha la wax ginnaawam nag lañ teqale xam-xam yi loolu nag buñ ci duggee dañuy gis ne xam-xam yëpp noonu la demee woon mooy ci njëlbeen saxaaba yi ci misaal xamuñu woon lu ñuy wax li ñuy wax tey mustalahul xadis nga xam ne mooy xam-xam bi ñuy jàng xadis ak ilmu tarajim ak yaa ci aju woon masalan al mawquuf ak al xadisul marfoo al mursal al yooyu saxaaba yi xamuñu ko woon bi la xam-xam bi juddu masalan buñ buñ lu mel ne ilmu tajwid masalan al maddul laasim biñ ci wax loolu saxaaba yi xamuñu woon mooy lan ku ko ci waxoon du na ko bañ a xam المد العارض القلقلة الإخفاء الغنة يوي صحابي خمني كون تي مثال تي فق أم نين تي سوسي باري نخم خم بي مغ بني بني بني دتاي كو لما نسجور السهو مثلا ولا بيوع الآجال آه، مثلا نواقد الودو يوي صحابي خمني كون waaye yooyu yëpp nag ma nga fa woon waaye turi yi fi nekkutoon laa bëgg wax kon xam-xam bi ginnaaw bi lañ ko jàngat ba len lu nañu wutal ko tur masal lu mel ne naxwu rek nga xam ne grammaire arab li ñuy wax alfi'l ak faa'il ak sifa mushabba ixtisaas yooyu saxaaba xamuñu ko woon seen ginnaaw la sosu balaaxa bi itam tashbih ak istiaara ak ak tibaaq yooyu ñuy wax noonu yooyu saxaaba xamuñu ko kon li ma bëgg wax mooy xam-xam yi ginnaaw yonente bi la sosu ñu ñu jàngataat islam détaillé ko lenn lu ne def ko xam-xamu boppam loolu moo jur nag tasawuf nekk xam xam boppam di ihsaan bi nga xam ne moom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci xaddis yi nga xam ne weesu nañ ko bu ko defee itam ñu xam leen itam tur wi amu ci solo tur wi amu ci solo day am ñoo xam dañ lay wax ne la tur wi ci boppam yonent bi masalan xamu ko wala saa waaye tur moom xamu ci amu ci ndax yii ma la wax yëpp yonent bi xam maanaam saxaaba yi xamuñu ko woon day am ñoo xam ne dañ ne liñ ci jaaxal mooy tariqa yu bari yi tariqa qaadiriya saadiliya tijaniya nangam nangam te yalla dafa wax ci alquran ne wa anna hadha sirati mustaqiman wa la tattabi'u subul moy na ngeen jaar ci yoon wi sirat mustaqim te bu len jaar ci subul yi moy moy yoon yu bari yenen yi ñal yi waye foofu it ñi koy wax xeyna ak ñaka deg ak ñaka xam alquran mo koy jur rek ndax yalla yoon ya muy aaye ku ca jaar mooy yoon ya wérut waaye wenn yoon dana séddali ko yoon yu bare bari loolu lu neex a dégg la xam ngeen ne masalan dem màkka bu ñu dem màkka jubluwaay bi mooy dem màkka waaye yoon yi ngay jaar ngir àgg màkka day bari ñi dañu dugg avion ñi dugg oto ñi di dox ñi dugg ci gaal yi te loolu lépp wenn yoon wee fi ne ngir dem màkka fi ne fiil yi nga xam ne moom la jëfandikoo rek boo ko ñëwoon yu bare bari moo ci ne te lepp bu andé di di genn di genn yoon wala genn fil go xam moy tax deg mëna a am moo tax courant mën a masalan te ci alquran dañuy gis loolu suñu borom wax na ne jina jahadu fina lanahdiyannahum subulana manam ñi nga xam ñoy jihad ak seen bakkan ngir bëgg a ag fa yalla ñoñu yalla da leen gindi leral leen yoon yu bax yi nga xam moy maye ngërëmul yalla gis nañ sax بني وقت القرآن يعني وقد هدى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا سبل ما يال مونو وان يون يو بري يني كون يون يو ييب لي مي بري بري وين يون لا فيني وجيم سبحانه وتعالى kon yoon yi tarixa yi da ngay gis mu bari lool waaye nag jàppal ne wen yoon rek la li leen wuutale mooy kenn ku ne masalan jaamu yàlla naafile ga li ñuy wax wérdu wérdu tarixa ba nga xam ne mooy naafile gi nga xam ne moom lañ jagoo naafile googu moom la ñuy wuute kii day def faatixa masalan kee def ayatul kursi kee def salaatu ala nabi kee di def istigfaar kee di def hayla la masalan waaye gis ngeen yooyu yëpp ci biir islam lañ lañ bokk te bu ci ne itam yónnente bee ko jàngale te tarixa bu ci ne itam lam yor yonante bi moko jox borom tarixa ba kon li ma bëgg wax mooy yoon yi day nuru lu bari waaye benn lañ mi ngi mel noonu ñëpp jëm si fi Touba rek kee jóge Ndar kee jóge kaolak kee jóge de nga am Fuuta kee jóge feneen ak feneen ak feneen ñii dugg ci avion ñii dugg ci oto ñii kii waaye fi ñu jëm si mooy Touba sa oto maanaam li nga war mën naa yeex maanaam tarixa bi man nga ne sama tarixa wala oto warwaay bi mu war moo gën a gaaw ci warwaay yi waaye ginnaaw ñëpp danañ àgg rek dafa dëkk ba lañ jëm te bu nu fa àggee kenn du xamee kii ak fi ak kee ndax benn dëkk be benn jubluwaay bi itam te suñu borom te tabaaraka wa taala foofu lañ jëm kon li ma bëgg a mooy kon loolu du ay du du du lu am solo am na ñoo xamit it dañ lay wax ne la jëmmi tudd gi ñu tudd ay ay maanaam tariixa sàngam loolu moo mënoon a ñàkk waaye loolu dañuy xam le ne ci lislaam na bokk masalan gis nga saxaaba yépp dañ leen daa tudde saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asxaab yi la yonte bi daa wax waaye gis nga ñu teqalewaat leen tuddee al ansaar tuddee al muhajirin am na ñoo xam sax yonte bi moo leen wutalu tur ku mel ne bilaal yonte bi tuddee ko al xabashi suhayb mu tuddee al ruumi salmaan mu tuddee ko al farisi kenn ku ne mu delloo la fa nga dëkk gis nga ci alxuraan ñu gis jullit ñëpp mën ne ni ay muslimuuna lañ waaye muy wax xaasiciina ak qaanitiina taa'ibiina mutasaddiqiina aabidiina xaamidiina shaa'ixiina tawaabuuna ak saabiruuna ak muxsinuuna saajiduuna raakicuuna daakiruuna mutawakkiluuna ñu ñëpp fi ne ay jullit lañ ma la ne muslimuuna rek mu jeex kon li ma bëgg wax mooy tur yi kenn ku ne amul tur loolu dara nekku ci du bidaa te ci lislaam la bokk itam te loolu noonu la dikkee ci alxuraan dikkee ci sunu yonent bi saxaaba yi noonu la seeni tur demee woon taabi'un yi bi ñëwee mën nañu tuddee ay taabi'un rek mooy ñi topp ci saxaaba yi waaye gis nañu dañ leen tuddee musta taabi'i lañ leen tuddee taabi'i lañ leen tuddee waaye gis nañu itam ci jamonoy taabi'un lañ tàmbali kenn ku ne langa nga siiwee fànn ga nga gën a jëm ga nga gën a màcc jëm ñu la koy tudde ñi dëdd ñu leen tuddee az-zuhaad ñiy jëfandikoo xam-xamu fiq ñu leen tuddee al-fuqahaa masalan muy dem rek kon yooyu du ak jaaxle du du am solo foofii la tàmbale mooy ci yonente bi sallallahu alayhi la tàmbale ndax tarixa du dara lu may ki ci dugg day jaayanteeg borom tarixa bi jaayante googu nag yonente bi sallallahu lañ ko daa defee lañ defal fi yonente bi jógee ñi ko wuutu ñu leen koy ñu leen koy defal ba loolu mooy indi sëriñu tarixa yi Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ma ca jiitu yeesalaat jaayante nga xam ne kuy dugg ci tarixa bi ñëw da ngay moom fasanteeg moom kóll rek dox jëm ci yàlla te baye ko sa bop nak mu lay mu lay mu lay guidé nga baña top sa banex te top li yalla bëgg loolu mo indi eh, jaayante googu jaayante googu gis nañ ci alcorane la dik sun borom fonk gi ko fonk taxna mu wax ne inna alladina yubaayicuunaka innama yubay'una allah sun wax yonte bi ne ko ñi jaayante yow yalla la jaayante wané wane na itam ci aaya bobu ne ak kolere la guy dox digënté sëriñ bi ak télé bi ndax ba mu ne yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bi ma ahada alayhi llaaha mooy yàlla nga fasanteel ko lëre seer ànd ànd ak na sëriñ bii gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man maata wa laysa fi unuqi bay bayatun maata miitatan jahiliya képp ku faatu te jaayante woo fenn amoob sëriñ ci gàttal rek yow deewug jahil nga dee te deewug jahil ña ca dee yàlla ñu ci yàlla musal ci loolu Hadis bu mi ngi ci mi muslim imam muslim moo ko nettali ak ñeneen ak ñeneen ci aduna bi fi ne ni am na ñoo xam ne xuloowaale tasawuf yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sànni ay xeer nit yàlla yi ak di leen xasaka wax lu bon ñoom foo leen fekk danañ jaayante waaye ab ab ab ab nituk aduna la jaayante jaayanteel buurub àdduna boo xam ni ab saay-saay lay doon di cëpp dëkk ci lekk alali jullit ni ñuy mel noonu jaayanteel waaye taamuwuñ di di jaayanteeg nit yàlla yi masalan nun nag nu taamu ki ni jaayanteel nekk nitu yàlla dégg nga ku ni leeral yoon wi te jaayante day lu lu lislaam fonk ni ma ko waxee léegi yoon bi sallallahu alayhi wasallam ku mas dugg ci lislaam da ngay ñëw eh, tàllal sa loxo mu jaayanteeg yow gis nañ Seydina Ousmane keroog ba nga xamee ne sulhul Hudaybiya ba mu nekkee biir Makka nga xam ne fekkewul jaayante ba dafa yëkkati loxol boobu moom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne loxo bi maa ko jaayanteel Ousmane radiallahu anhu wa ardaahu salamatu bnul akwa di saxaabi bu baax bu sell jaayante na ba noppi yonente bi ne ko jaayante waatal te xam ngeen ne ab saxaabi dara naa naafeq du ca nekk waaye loolu sekkare la xëy na yu ca ne ci biir jaayante jaayante lu am solo la lu am ci sala la itam duñ ci guddal loolu mooy mooy tàmbali dugg ci dugg ci tarixa loolu rek doyoon na fi ne njariñu tarixa mooy def gi ngay dund gi ngay dund la saxaaba ya doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam boo duggee ci tarixa li ci ëpp tarixa yëpp dañ lay talqiin ma dañ lay sa wérdu tarixa bi sa boobu itam ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la la tàmbalee mën nañ cee jël rek misaal xadis bi imaamu ahmad nettali te mooy wax ne ubaadat ibnu saabit ubaada ibnu saamit moo toogoon ak saddaad ibnu aws Shaddad ibn Aws di nettali Ubaada di ko di ko dëggalal mu wax ne moom Shaddad ibn Aws ne danoo nekkoon fa yónnante ba sallallahu alayhi wa sallam benn bis yónnante bi jékki-jékki nenu ndax am na ku bokkul ci yéen ku nekk ci yéen hal fiikum gharib ñu ne ko déedéet moo da ci jublu ndax kenn ci ahlul kitaab wala nasaraan yi wala yooyu maanaam ñi bokkul ci diina ji ndax am na ko ci ne mu ñu ne ko déedéet noonu rek noo fenn jullit ñi mu ne leen tëj leen bunt yi ñu tëj bunt yëpp mooy leen yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati seeni loxo mu daal di wax ne na ngeen wax yéen ñëpp ne laa ilaha illa allah ñëpp ne laa ilaha illa allah nee na ñu def ko ab diir fa rafaana aydiyanaa saatan fekk yonte bi moo njëkk yëkkati ne def leen nii ma def sahaba yépp topp ko ci musa saleen baatub la ilaha illa allah dan leen doog leen wax nag bañ lu mat ab waxtu waxtu bokk nee na lu mat saaxa ab diir bokk la bëgg wax rek nee na mën leen wàcc leen seen loxo daal di santaar yàlla alhamdulillahi alladi baatani bi hadihi alkalima wa amara wa wa wa wala bok alhamdulillah allahumma baathani bi hadhihi alkalima wa amartani biha wa waadtani alayha aljanna wa innaka la tukhliful mi'ad daal di sant yàlla ne ko yàlla yaa ma yónni waxloo ma lii ci muy muy baat bi laa ilaha illallah dégg nga digal ma ko itam dige ma dig ma ci itam aljana te yow li nga digee faw nga def ko daal di wax jullit ñi ne leen abshiru fa inna allaha azza wa jalla qad ghafara ko na ngeen bëgg yéen jullit ñi ndax yàlla jéggal na leen yéen ñi ñi ma doon sa baat boobu laa ilaha illallah loolu mën na na ko gàttal rek mooy suñu mag bi wax na ne fii bi muy doog a sanci Tuuba boobu moo daa dëpp dëbbi laa ji ci biir la nekk di wax la ilaha illa mbolom tel bi yépp di di di ci ànd loolu loolu ci tarixa yépp la am itam sag yi nga xamne mom la mom te nit tarixa yi ku ci ne ñom yoonte bi mo la koy sax da nga koy gis ci lu ay nelaw loolu dañ ci ñew inshallah lu lu lu amul ben sikk la lu wër la kon ki fi nekkal yoonte bi don yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga ak mom mu sala ak tuddu yalla loolu der loolu rek jarna na dugg ci tarixa maanaam maanaam ku ko deful doo wuute ku ko def doo wut da nga wuute lool ak ku ko deful waaw kon mën nañoo taxalu foofu mel ni waxtu wi dab nanu yonente bi ni mu sayee baat yooyu na la sa yeneen yi baat danañ ci ñëw insha allahu taala noo ngi jégalu bu baax di ñaan yàlla mu defal nu dégg ak topp subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala nafaan wala mawtan wala xayaatan wala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون